bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasala allahu wasallama ala sayidina wa xabibina wa shafiina wa maulana muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ixwati alkiram asxaab almaali saadatul ulama ayuha saada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 seen mbokk Oustaz Alxaaji saas Alioune Mbaye di ci feggoog yéen ba waxtu wi jeex incha allah ginnaaw loo nañu ñu dool lay ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi wër ñaan suñu borom subhaanahu wa taala yàlla na doolee faj aajo yi teggi ci saafara jàngoor yi te jéggale bàkkaar yi yàlla na yàlla gën a xeer ci boppam aar ñu làq ñu fa yàq yeggul yàlla bu nu yàqu yàlla bu nu yàqule <coughs> lu am yàlla nu am yàlla lu nu ñàkkit yàlla nu am yàlla yàlla nu yàlla gën a sàmmal boppam yàlla nu yàlla gën a aaral boppam bi jaay si wujudi wa alami shuhud lépp lu nu ko jaamu mu néew ak mu bari mu sell mu ñàkk sell yàlla na ko yàlla nangu te fulandil nu ko lépp lu nu ko mooy mu néew ak mu bari lu nu xam ak lu nu xamul yàlla na ko yàlla jéggal te suturaal nu àdduna ak alaaxira yàlla sañ na ko mën na ko yàlla na ko yàlla defal bi juudihi wa karamihi yaa akramal akramiina loolu weesoo ñu doolee ñaan ci réew mi jàmm waaye jiital ci mbas mii nga xam ni moo lëmbe àdduna bi warngal ko këpp yàlla na sunu borom subhaanahu wa jeexal ko takk ba ñu dellu ca sunu sago delluwaat suñu activité te yàlla barkeel te woomal poos yeeg xel yeeg xol yi yëpp bi jaay seydina muhammad sallallahu taala wa sallam poos bu duun xol bu duunu ko gën bari la barke le ko gën yal na nu yàlla defal barke ci sunuy koom-koom defal ñu sunu barke ci sunu réew waaye defal ñu barke ci sunuy ndaw sàmmal na sunuy mag aaral ñu leen ñu yàgg fi lool ak ñun te bis bu yi fi tegoo ci sunu loxo yal nañ ko yor ci jàmm te bañ cee def lu ëpp wala loo lu lu lu lu lu mag ñi deful woon bi jaay seydina muhammad sallallahu taala wa sallam bu loolu weesuwet ñu ñaanal sama soppe sama sëriñ sama xarit sëriñ Alioune Sall Safiyatu ñaan sunu borom subhaanahu wa na ko doole yërëm te jéggal ko yàlla na ko yàlla xaare àjjana yàlla na dem gi di noflaayam fa mu nekk yàlla na ko daqal fi mu jóge yàlla bu ko topp dara dara dara yàlla bu ko yàlla topp dara yàlla bu ko nar a topp yàlla na yàlla féete ca loola bi jaay seydina muhammad sallallahu taala wa sallam nit ku baax la woon kenn du ko fàtte ñaanal soxna yumaane Mbay sunu jigéen yal na yàlla yërëm leen boole ci way jur ak seeni wayjur suñu way dawee yépp góor ak jigéen mag ak ndaw yal na suñu borom subhaanahu wa taala leen te dëkk leen ci àjjana yi gën a kawe ña ngeen fa fekk ak ña fa fekk ak ñun ña fa nar fekk yal na yeex yal na yàlla boole yërëm jéggal nu mbaa yàlla ñu ba ñu topp dara dara dara dara ba dugal ci àjjana yàlla ni gërëm naa leen ñu ni ko gërëm nañu gërëm nañu la yàlla man na ko sañ na ko yàlla nañu ko defal ñaanal nag suma xarit suma soppee sama directeur sunu directeur alxaaji Baye Omar Gueye beral ko ñaan beral ko cant waaye cant gi ngërëm ni dañ ko war a soppee ñaan rek ñaanal ko yàlla na la cet seexlu li nga bëgg a liggéey yal na ko yàlla liggéeyloo yal na yàlla bàyyi ak sa sago yal na yàlla bàyyi ak sa xel bi jaay seen wujud wa alami shuut yàlla mën na ko sañ na ko yàlla na ko def yàlla nga àggale ba àggale naal yi nga sax naalagul naal yi nga naal yëpp yàlla nga ko te nu ànd kook yow ba naal yi sa xel te wax a goo ko yal na yàlla may nga àggale ko am nañ ci yaakaar ndax naw nga te demaguloo fenn yal na yàlla jàpp ci sa mbagg yëkkati la yuqi la bu baax a baax a baax ba nga tiim say maas bi jaay si wujudi waa alami shuhud yàlla sañ na ko mën na ko loolu nag mooy maqamam jaam jaam moom ñaan rek la man te boromam rek la mën a ñaan ñun suñu borom rek la nu mën ñaan yal na lañuy defal leen nañu yàlla defal loolu baax nga lewet nga bëgg nga liggéey bi kilifa nga yor nga jikkoy kilifa naw nañ la barakallahu fiik jërëjëf géey yéen yàlla sàmm la tànk yaa ngi mel ni ngay mel ni duñu am complexe di ko wax ndax bu jàmbaar day wax it jotalkat waru koo jotal barakallahu danga da nga ko def rek moo tax damuñu complexe ci wax feeñal feeñal ko ci kaw ndax euh, mbaax gi moom fees na ba ñëpp xam nañ ko jërëjëf doole jaale sunu yaay euh, soxna Faat Diouf di yaay ci soxna Daado Fay euh, di sunu collègue fii yeesal sunu njaal sunu isa ñang eh, ak la seen ñaari way jur yooyu ñoom ñaar baarakallah yal yàlla yërëm leen te jëggal leen ñun ñëpp eh, Malick Ndiaye way juróom wi génn àdduna moom itam ak eh, Lamine Guèye Saaman ak mboolem ñi nga xamante ni ñu ngi liggéey na ñoom fii te seen way jur dem yal na sunu borom subhanahu wa taala leen te yërëm leen te xaar leen bi jaay seen wujud wa alami shuhud mbokk yi ajuma jiinu génn nag noo ngi woon ak yéen ci sang bi aleyhi salaatu wassalaam xam ngeen ni génnoon na màkka coono bi mu daj ci yoon wi ak kéemtaan yi yi ko sunu boroom won ci yoon wi yooyu yépp baarakallaahu am na lu ñu ci njotoon a jukki ak yéen léegi nag sang bi aleyhi salaatu wassalaam dugg na ma mën a munawwara <clears throat> dugg na madinatul munawwara dëkku leer dëkku barke dëkk bu naat te bari jàmm dëkk boo xamante nii dana tiim moroomi dëkkam yépp dëkk boo xamante ne nii dana ëpp barke moroomi dëkkam yépp ngir lan ki gën ci nit ñi fala mujj fala feeru ji fala ferlu ji yàlla sarax leen jëmmam jooju waaye diirub la mu fay nekk alquran di wàcc jibril di wàcc ak teraanga ak tedd nga du fa jóg mukk ndeysaan alayhi salaatu wasalaam ànd ak xaritam ba abubakarin saddiq bi ñu leen dafa mel ni kee di ñëw de moom la fekk booba sang bi alayhi salaatu wasalaam mi nga ànd ak abubakar kii war xadaba kii war xoswa ñoom ñaar ñuy ñëw ak xale yi ñu àndaloon Abdullah ibnu Urayqit ak Amir ibnu Fuhayra ak ña ñu àndoon ci personnel bi yoroon liggéey bi ñëpp <coughs> ah waa maam Alaaji Malik nan la mbir ma demee mu ni maa leen ko wax mu ni تقلب ساعة يوم للبيوت وقد راى النبي يهودي على القطم وسليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدا المختار في القدم نتقلب ذات يوم ñuy jàkkaat ñoom ñépp dëkkmal nañu benn bis lil buyuti wa qad raa nabiya ka jëkk a gis maanaam ci ka nekkoon ca néeg ba jékki-jékki na ni wëlbét te kooka yahudiyun ab yahud la ala oto bu nekkoon ci église am benn labbe bu nekkoon ci église am di wéetal boromam moo jékki-jékki ne hey yéen daa mel ne ngeen doon séntu baadu ñële ñëw na de kële la de <coughs> la ilaha illallah naadaahu qaa'ilan qad laaha jaddukum qaamu ilayhi siraan fi salahimi laa ilaha illa allah nee naa leen yónni leen ma nen ngeen dë dox leen rek ne naadaahumoo woona leen qaayila mu leen xad laaha jaddukum seen gan ga ñëw na yéen kat seen gan ga ñëw na ki ngeen doon seen doonga dë xaamu ñoom ñëpp ñu ni bërit ilayhi jàkkaarloo moom siraan ci lu gaaw fii silaaxim yi ci ci jàmmal ko ak ci tag ko ak gatandu ko làqu ñu nga dajeeg moom fii naxlatin teroon tàndarma teroon tàndarma ka lañu dajeeg ñoom qawluhum maam alaji malik ba ñu dajeeg moom luñ doon wax ak luñ ko wax mu ni alal duxulaa laa taxaafaa fa charru zil waxami ñu ngi naan ko sànnil sa yetu sa yetu xare dàqal sa ñayu xare fi xeex ak kenn soyez les bienvenus egg si nga fi ñu la doon xaare ñëw nga fi ñu la bëggee nit ñaa ngi naan talaa al badru alayna min sanniyatil wadaa tala albadru alayna min zaniyati alwada wajaba sukru alayna ma daa lillahi da dëkk bi naan kër kër kër kër kër jigéen ñeeg gu ndaw ñeeg mag ñi kenn xamatul koo àndal fëlëx fëlëx fëlëx fëlëx ñëpp yàkkam dëkk ndeysaan ñu di ko gàttandu ñu di ko gàttandu tëgg mi sar xolle xam nga naa dafa mën a sar xolle waaw yaa ndeysaan yet ye jolli feetal yi téeréer téeréer xam nga dëkk bu ne ak seen seen macha allah oho sang bi ñëw na kenn mësu koo gis ñii tàccu ñii taalif ñi way ku ne loo xamoon ci wax ju rafet rek yaa ngi koy wax maa ngi lay wax keroog ni la am na jigéen di siirin Sirine ndeysaan sama confrère ba la ca TFM Pape Anne moom mooy waxtaane siira waaye bu egsee foofu da xam ne moom tam ku maîtrise la muy wax la Pape Anne maa ngi lay nuyu baax a baax macha allah yaa ma gën a tax ma ma bëgg siira ndax moom macha allah ni mu koy waxee moom man moom daal jàmbaar la maa ngi lay nuyu Pape macha allah. soxna si ñëw ni ko man de mënumaa woy mënumaa tëgg waaye man na maa taasu moo ndax bu ma taasoo dinaa ci am bàkkaar ndax war naa koo def maam alaaj maay lu rus lay wax <laughs> mu ne koy waaw waaw loolu de doo ci am bàkkaar doo ci bàkk doo ci ba mu koy wax nee na dafa ànd ak muuñ xam nga wax naa léegi ne leen civilisation naar arab bu bu nee naar sa dañ mel ni dafa am ñu may wax waaye arab rek ndax ñoo ñëpp wenn xeet wi lañu mooy moo xam ku nekk ci Mauritanie moo xam ku nekk ci moo xam ku naar naar naar la arab arab la wala fa di naar rek waaye ñu ay arab lañu waaye ñu bokk ñoo daanaka ñoo bokk civilisation ñoom seen soirée boo demee boo jàpp chaîne Mauritanie ba ñu egg ba ñu am jot bay def soirée ndax ñoom lu bis bu ne lay seen relais yi génne waa tëgg ak yooyu déedéet euh, waaye buñ te tolloo ba am jot ba ba ba bay def seen soirée yooyu di nga lépp dëgg la ndax fetal yaag épée yaag ñi te nan nañu mën fecc waaw ñi dañ dañu tëgg kii sukk benn tànk bi sëpp jële ni ñoy yi ni lëfañ ni ñoy yi ni lëfañ tëdd ni ñoy ni lëfañ <laughs> moom moom loolu il faut nga am physique mbaa wér-gu-yaram nga mën koo def macha allah rek soxna si àgg suuf daa ne man de mënumaa tëgg mënumaa way waaye mën na maa taasu ndax duma ma ci am bàkkaar mu ne ko doo ci am bàkkaar insha allah day la nga ci am sax mooy ngërëmu yàlla soxna si daal di sukk batu wóom bi coŋali benn bi teg baaramu dëbi ci digg ci ginnaaw ci ndunkul kol boobu teg beneen baaram bi ci jébi rek door sar xolle daal ni fa wa hal alaya wayhakumu in la hawtu min xaaraj xaaraj xaaraj xaaraj feccale yoon ci insha allah eh, <laughs> kenn mësu koo gis noonu lañu teeroo sang bi alayhi salaatu wassalaam waaye nag maam alaaji maag nee na islaalu sayidina siddiqu arrafahum iyahu qul innahu min afdalil amami maam nee islaalu sayidina bi ñu ñëwee pënd bi ak poussière bi seen yaram kenn xàmmewu leen waaye Aboubacar Saddiq mi nga xam ne mooy taalibe moo wàcc darajaam jël mbubbam wala jël pare solam tiimale ko yonent bi sallallahu nit ñi xam ni moom du moom ki ñuy teeru du moom waaye ki ñuy teeru mooy kii mooy ngand mi kii mooy ponkal mi waa ngi ki ngeen doon xaar ngi nii moo tax mu islaam si na si di keral gi mu ko doon keral ak tiimale gi mu ko piimaloon lu mel ni parasol ngir sangale ko naaj wi ci la ñu xam ne kon ki ñuy muur ki ñuy tiimale parasol mooy sang bi kiy muur mooy Abubakarin Saddiq ak am solo macha allah wa min samaniyati l ayami تلك المسافات لم يتهم ولم ينام nee na wa min samaaniyati ayaamin ci juróom-ñetti fan jaaba ci la traversée ala tilka masaafaat ci kilomètres yu bari yooyu quatre cent cinquante kilomètres huit jours la ko son yonent bi sallallahu walam yenami toqiwul tayyiwul te nelawul allahu akbar macha bi ismati rabbi aw anaaxa la dal quba aduman bila dayrin wala tahami allahu akbar allahu akbar ñoo ne jox nañu ci kàttanu sunu borom ci kaarangeeg sunu borom subhaanahu wa taala ba giléem gi ñëw fa mu jëkk a dal muy xubaa fa jëkk tabaxe jumaa fa la ndigalu julli jumaa jëkk wàcce loolu na nu ko xam dina ñëwaat léegi nag ci fii nu yamoon waaye ana waa màkk perte nañu ana waa màkk ñàkk nañu ñàkk nañu ku rëy ñàkk nañ lu rëy ñàkk nañ lu ñu mënta dabooti ba abadan abadan abadan abadan sang bi génne na fa bàyyi na leen ak bàyyi na leen ak lëndëm tàqali ko nag ay mbokkam ku baax ki wéy na te sang bi diiru lam fay nekk qualité yu baax la leen wan jub bañ tudd al amin nekkoon boroom yërmande nit ku bari kersa nit ku bari teggin waaye walaw alimat qurayshun alxaqiqata walam yataazabu la tamassaku bi ihsaanihi mu ne cey bu waa quraysh xamoon ku baax kii dëgg dëgg dëgg su fekkoon ne xoole wuñ ko woon bët su fekkoon ne xoole ko woon rekk kii ñoo ko jur waaye kii xale bu ndaw la suñu kanam la juddoo kañ la fi mel nangam kañ la fi def nangam su fekkoon ne xoole wuñu ko woon loolu allahu akbar kon daañu jariñu bu baax a baax a baax ci moom kon yataazabu kon duñu koy mbugal duñu mbugal ni ñu mag li mu àndal moo kon maam lu ñu def mu ne la tamassaku bi ihsaan yi kon waroon nañu moy ci mbaax gi mu leen wan mënoon nañu moy ci jikko ju baax li mu ji leen wan mënoon nañu moy ci mu baax wa taallaqu bi adyaanihi ñu ñu ñu roy ci diine ji mu leen wan ndax l'islam solution na waaye du problème bu màkk xamoon dëgg-dëgg kii leen yàlla ni mooy kan kon dinañ ko mooy ak seen fukki loxo ak juróom waxraqu min faydi ilmihi kon daañu daañu daañu lap ci bëtug siyaanam gu xam-xam siyaanu xam-xam nga dem bët bu balla ci moom kon waroon nañ ci mën a naan ba lab waaye kon waroon nañ mënoon nuur bi buxuuri xikmatihi ci géejug xikmaam daw bi hadiyihi ñu sàkkoo gindiku ci gindikoom wa taxallaqu bi xuluqihi ñu roy ci jikkoom daal di ay jikkowoom bu boobaa kon faazu daañu texe bi niami dunia wal axira àdduna ak àllaaxira ci texe walakin waaye nag ndeysaan xamuñu ko xamuñu ko moo tax waykat bi nee na qad laa yudriku l maru xiimata cheyin illa baada wafaatihi nit ñaare du xam mukk mukk li koy jëriñ lu dul bu demee ba ñàkk ko wala mu dem ba gisatu ko moo tax inna rasulallah bi hijratihi qad taraka makka fi dalaamin daamis yonente bi yonente bi yàlla bi sallallahu alayhi wa gàddaay gi mu gàddaay génn ko màkk tax na mu bàyyi màkk ci lëndëm gu ñuul kukk bàyyi na leen ci jafeñ-jafeñ ak fitnaak njàqare goo xam ne seen xel dootul dal mukk mu ngoog fa lamma wasala madinata bi sang bi àggee madinatu munawara ashraqat anwaaruhu leeram yi nga xamante moom la yàlla moom la ko yàlla jagleel ma ngay jolli di fitti fi jamii arjaayihi ci gox yépp fa xaraja al xeet yépp génn yestaqbilunahu ñu koy gatandu bil bishri wa sururi di ko gatandoo ci mbégte ak bote wa yatasaabaqunahu ñoom ñépp ñu jëkkante li mu shahadati wajhi ngir jàkkaloo xarkanam gu sell googu wa yatasaabaquna li mu shahadati wajhi asabub wa yatrakuuna wa yatabarrakuuna bihi ñuy barkelu ca moom wa yadifuunahu ñu koy sakkoo ganale ku ne naan sama kër lay dal ku ne naan maa maa jëkk ku ne naan ma ñii téye ci nosu giléem gi ñii téye ci bagage yi ku ne naan kii sama kër la jëkk ku ne naan sama kër la jekk wa yastamiuunahu ñoom ñëpp ñu àndandoo am noppi déglu ila xikmatihi lbaaliga ci xikma gi nga xam moom la ko yàlla jox ku jotale gi waqad abaru ñoom ñëpp waaru nañu an shuurihi ci feeñ gu mu feeñ ci ñoom bi zalika nuur ci leer googu bi qawlihim moo tax ñoom ñëpp ñu àndandoo di way tala albadru alayna min saniyaatil wadda tala albadru alayna min saniyaatil wadda wajaba sukru alayna ما دعا لله داه طلع البدر feeñ na ci ñun al badru weer wu leer nañ wa ma xamante ne mi ngi toll ci quatorze jour nga ñu clair de lune bi bu puso waddee sax guddi nga mën koo for xale yi sawar ñëpp mën a génn ci bi courant amagul woon weer woowu maam anamu mu ni talaa feeñ na alay naa ci ñun waa medinatu munawara bi yonent sallallahu alayhi wasallam ñëwee ci medinatu munawara li mu jëkkëre mooy mu axaat indi fa jàmm indi fa système bu rafet ni leen nag bëggatuma fi ay piccum jàmm laa bëgg mu naaw ngelawal jàmm laa bëgg mu am bu fi fitna amati na fi jàmm am mu ni mu axaatun nag ñu def ndey dikke wala baay dikke waaw mu axaatun frère par frère ñëpp kenn ku ci nekk ñu ne diw sa xarit ana abdurahman ibn awf mu ni ko maa ngi nii yow mu ni ko maa sayd ibnu rabi al boole naa la ak sayd euh, saïd ibnu rabi kooku daal ñoo ñokket jóg ni nikk ci loxoom mu xool ko ndeysaan agolaat ko taf ko ci dënnam ànd ak moom ba ci biir këram ni ko sama alal samay soxna ñoom ñépp a ngi nii tey maa yow ñoo ci yem seetal ci sama soxna yi ñi ma am koo ci bëgg ma fase ko bu yidaam jeexee ñu may la ko sama alal a ngi nii xaaj naa ko ci digg bi jëlal lii ma jël lii allahu akbar allahu akbar waaye mbokk yi ana abdurahman ibnu Awf lu mu wax abdurahman ibnu Awf ni ko baarakallahu fi maalika wa fi ahlika yal na yàlla barkeel sa alal yal na yàlla barkeel say soxna ak say doom jërëjëf teral nga ma ba terale ma say njaboot baarakallahu suuna këll jërëjëf jërëjëf leen rek laa lay laaj mu ne ko lan la mu ne ko ana yoonu marché ba ana yoonu marché ba mu ne ko marché baa ngi nii mu ne ko wutal ma buum ak semmiñ ak jaasi mu wutal ko sa buum ak semmiñ bu xëyee yeew ndigil mu ne ngodd dugg ci àll bi gor ay say matam yu bari takk yeenu indi ci marché bi di jaay moom moom moom moom ba moom moom ba alal ñu nangu woon ba muy gàddaay mu am lu ko fuuf bokk ci gën a riche ci màkkatal mukarram moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam kën na ashaabi kan nujum bi ayyihi muhtadaytum ihtadaytum sama sahaaba yi day ñu ngi mel ne biddéew ci yéen ku ngeen ci jàpp baroy ko rek yoon waa ngoog bu leen ko bàyyi mokka ca dese benn lañu waaye mbokk yi dañu am fi wax bu am solo abdurahman ibnu awf mii mook saïd bi mu ko nee sama alal la ngi ne jëlal genn wàll gi ma jël genn wàll gi samay soxnaa ngi nii seetal ko ci bëgg ma may ko baat bu yi damate ñu may la ko samay doom ngi ko ci bëgg ma féetale la ko muy lay liggéeyal daf ko ne baarakallaa fi maalik wa fi ahlik ana yoonu marché ba gis nga bëgg lu yomb ak gom gongom loo dag ba daañu ci kaw nit ñi moo indi fitna yu baree baree baree bari waaye kii formation bi mu am nekkoon ku riche nekkoon ko am alal waaye riche googu ak alal jooju taxul woon mu fal boppam buur xam na ni alalam ji ñàkkam moo ko mayoon looloo tax ba mu ko ñàkkee te waa Màkka nangu ko it ba mu ñëwee dafa gëm ni bu liggéeyaatee dina am gis nga ci ci créer emploi donc yaa ngi am complexe yaa ngi rëy dangiral waaw man étudiant laa man élève laa ah, man dammeel laa man ci sëriñ nangam laa dangam fu ne boqatu fa tappaleeg bañ liggéey dong la loolu di jur waaye gis nga sang nekkul ci ñaan ak yelwaan ak tàllal loxo sang ngi ci am soxla man koo fajal sa bopp te loolu li la koy may boo ca tolloo nga jàng li la koy may mooy boo toll ci am métier amal métier teel am sa dignité teel a am sa liberté bopp liberté li ñu yaakaar ne mooy liberté liberté gouvernement du ko joxe nit mooy may boppam liberté emploi gouvernement du ko joxe nit mooy jox boppam emploi ci bi nga war wut emploi nga wut ko mooy jàng métier am sa métier ku am métier fonk métier métier teral la ku am diplôme fonk diplôme ba ba ñi la doon jàngal ñaana la kontaan ci yow diplôme ba dana la teral waaye bul yaakaar ne mukk yàlla dina la nit dana fi saf yàlla saf koo xam ne ni jàngoo a métier manoo dara dara dara xëy xëy màgg doon milliardaire ci ci mbaggi nit ñi mënta nekk Abdourahman mii ibnu ibnu Awf mii bi mu ñëwee di gan gis lu yomb loolu ko Saïd defal mënoon na ko ngoom lu banki baaraamam dangiral waaye déedéet dafa ne ko jox ma dugg ci marché bi di matt di jaay formation daara foofu ngay commencé gis xoolal ñi ñi jóge ci daara ji ñëpp amul kenn ku ñëw indi diplôme français mbaa bac mbaa licence mbaa nangam nangam boo dikkee li ngay jëkk a def commencé jaay ay xoti saako marchand ambulant jaay ay buum jaay ay ronos jaay ay matelas jaay ay weer taxaw ci mbedd mi lépp lu xew nga jaay ci jaay ay dàll fëgg jaay bi lu ne nga nekk ci te booba kaangum alxuraan nga buy dox xaafis alxuraan nga buy dox boo xamante ne ku la laal laal alxuraan lu ci nit tari bu bu demee nga nga nga jubbanti nga dem ca marché ba di jaay su guddee nga durus bañ a fàttali nga jàng yàlla di la ci barkeel yàlla di la ci barkeel ñii nga ci kafe Touba gi ndeysaan <laughs> damay bañ a wax <laughs> ki may wax xam boppam waaye Mbacké Sylla ndeysaan dañu waxtaan ma ak moom benn jour mu ne ma man de damaa waar oustaz man nga ah, mu ne ma am sama benn waay doo xam ne daan jaay café Touba mu mujj su ma giseere gisee rek yërëm ko ndeysaan même bu même bu ma naan café sax damay am envie jënd café ngir dimbali waale ko ndax comme sama mbokk la rek ma ma ma ma jàppale waale ko ci mbir mi jàpp ci komba bi nee na ba benn bis rek ma de ma dajeeg moom <laughs> Touba nee na mu ne ma sama kër a ngi nii ma ne ah fii ngeen dëkk fii mooy seen kër mu sama kër la mu ne ko yaa moom kër gi mu ne ko mu ne waaw mu ne damay deuxième étage laay bëgg def nii mu ne ko yow foo jëlee xaalis mag bu nekk <laughs> bitim réew mu ne ko déedéet sama café googu di ci laa ko am nee na ma jàpp sama gémmiñ pour wax la ni daara ji li ñu mën a produire daara ji li mu mën a produire su fekkonte ni déglu woon nañu daara ji dëgg-dëgg kon léegi taxawalu gi wàññiku xeex bi xuloo bi wàññeeku xeex yi nga fi déggoon fan yëpp manifestation tàng yi nga fi déggoon yëpp ñi ci bokk doon ambulant la doon seen liggéey dañ leen ko tere bu leen fi jaayati bu leen fi taxawati di leen ramasse ak leen mbugal moo tax mu mel nii waaye bu leen bàyyi woon rek wala ñu wute leen fu ñu nekk kon jàmm rek kay am coow li coow li coow li coow li ñu koy def ñëpp mooy seen doomi bopp yi ngeen am def ko seen def ko seen kaware bakkan du ngeen leen tudd du ngeen leen taas lu ngeen am jox leen kese waaye gis nga daara diine mooy defar nit ba nga bëgg a liggéey am jom am ngor daan sa dool daan sa ñaq ñii nga ca café Touba ga nga ca rolo cinq buum ya ñii ngay jaay këriñ ñii ngay ñaw ñii nga ca lee ñii nga ca laa ñee nga ca laa waaye boo xëyee am sa doom def ko comme mu gën la école yi gën a cher nga nga nga nga inscrire ko fa mu nekk fa su màggee da nga yaakaar ne dina dina lu mu bëgg doon président lay doon rek député lay doon rek parce que fa lay teg bëtam ba pare nag du nawlu ay moroomam day jàpp moom Euh, moom quelqu'un la koo xamante ne nii wuute na ak sénégalais yi yooyu ñaari formation mooy yàq organisation réew yu bare bare bare bare barakallahu fikum abdourahman ibnu awf mu ngi noonu ibnu awf te kere ba muy gàddaay di jóge màkka dañu ko dab ñu ko alal ji du dem parce que alal ji fii nga ko liggéeyee ci màkka nga ko liggéey kon doo ko yóbbu ma madina lenn moo mën a am nga ñëw toog fii lekk fi alal ji mbaa nga bàyyi fi alal nga dem yaa xam waaye alal ji moom du dem mun leen alal ji maa ko liggéey alal ji liggéeyu ma ji maa ko liggéeyoon te liggéeyu ma nag jël leen alal ji man ma dem tem dabi yàlla ak yonentam ba waaye gis ngeen bi mu ñëwee gis ngeen ko yàlla def ma ngoog moo tax yàlla sunu borom subhanahu wa taala waalan saar ndax ñoom it kenn du ñooma abdurahman ibn awf mii gor la yaaram la nit ku baax la moo mu ni asnallahu ala al ansaar li xusni ma amila bii ixwaanihi l muhaajiruun waaw waaw na leen bu baax a baax ci suratul xashri ndax jëf ju rafet di ñu jëflante ak waa ak waa ak waa waa màkk ñi gàddaa yoon ñoo fekk si leen moo tax ñu alquran di wax ne alquran nee na wallazina tabawwa'u ddaara wal imaana min qablihim yuhibbuuna man haajara ilayhim yuhibbuuna man haajara ilayhim wala yajiduuna fi sudurihim haaja mimma uutu wa yuthiruna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun sadaqa llahu azim sunu borom nee na ña nga xamante ni gërëm naa gaa ña nga xam ne nii ñoo génn seen kër ñoo génn seen kër ngir gëm yàllaa ko yonentam di sopp ak a tag tagal man haajar ilayhim ñi nga xam ñoo gàddaay tëj seeni néeg bàyyi seeni mbokk wala yajiduna fi sudurihim haaja soxlaatuñu dara ci ñoom soxla wuñu seen alal soxla wuñu seen néeg soxla wuñu seen dara génn seen néeg jox leen jël seen alal bokkoo ak ñoom ñu day yàlla nee na tagg naa leen te digg naa leen àjjana digal naa leen sama ngërëm ndax kat wa man si suwa nafsihi fa ulaa'ika muflihuun ku xañ sa bakkanu bànneex jox ngir yàlla ngërëmu yàlla ku teral nit génn sa kër wala nga bokk ak nit bu añ jotee nga ne kaay añ bu reer jotee nga ne kaay reer ngir yàlla ak ngërëmu yàlla ko yonentam wax dëgg yàlla xañ nga sa bànneexu bokk bopp sa bànneex kër lu mu xat-xat nga jël kenn ku kaay fanaan ci néeg bi mbool lu mu xat-xat nga woo ko ko kaay li këpp leen boole ba diw ñëw ñu bokk lekk nekk ci loolu kenn sa mer kenn sa xuloo suñu borom nee na ñii ñooy ñu war tedd ñoom ñooy tedd ñii ñooy jëm àjjana ñii ñoom lay ñoom laay xaare sama ngërëm ëllëg bu bu kenn werante ci lii ma leen di wax moo tax euh, euh, te aaxu mbokkoo nañu ixway ni ixway ni ñaar ñaar moom la yàlla di gërëmee euh, boo demee ci surtout tawba boo demee ci surtout tawba sunu borom ay cent sunu borom nee na wassaabiquuna al awwaluuna min al muhaajirina wal ansaar wallazina tabauhum bi ixsaanin radiallahu anhum wa radu anhu wa aadda lahum jannatin tajri min tahtiha al anhar xaalidina fiha abadan zalika al fawzul azim sunu borom nee na wallazina wasaabiquuna gis nga boo demee ci bopp aay ji sa kanam sax waaye sunu borom subhaanahu wa taala nee na wasaabiquuna al awaluuna gaa ñi nga xam ñooy jëkkante ñoo jëkka jëkka dugg ci diine ji gëmoon lislaam gëm yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam nga xamante ne nii dañuy gàddaay génn seen kër ak waa Lansar ñi nga xam ne ñoo tag tagal ñoo ñëpp ñoom ñëpp gërëm naa leen sopp naa leen bëgg naa leen ñoom wallazina ak ñi nga xam ne itabauhum topp nañ leen bi ihsaanin ci rafetal gis nga kon bu ko yàlla yemale ci ci muhaajiruna waa Makka ñi génn bàyyi seen kër ak seen njaboot wala mu yemale ko ci waa lansaar yi génne seen néeg jox daktal jox ko ñee sax kon yi fi dana dana ni kon yàlla ñun ñi door a ñëw tam yére nag waaye déedéet wallazina tabaauhum ak gaa ñi nga xam ne topp nañ leen bi ihsaanin ci rafetal maanaam ñi leen bëgg a roy ba fii ñu toll nii ñi leen bëgg a roy ñii dimbali ustaas yi ñii dimbali imaam yi ñi jàppale borom xam-xam yi néew ji doole yi di roy waa muhaajirun ak waa lansaar sunu borom nee na radiyallahu anhum gërëm naa leen waradu anhu te it kontaan naa ci ñoon yàlla gërëm na leen te ñoom tam daanu gërëm seen borom subhaanahu wa taala wa lahum yàlla xarool na leen wala waajal na leen jannaatin ajjana yu daw am ay seewnde tajri min tahtal anhaaru xaalidina fiihaa abadan ay kër yoo xam te ne ay piscine ñoo nekk ci suufi kër yi saa woo bëggee sangu sangu loo soxla mu fekk la fa abadan abadan abadan du am ñette fan du am un mois ba faw doon ba faw doon sunu borom nee na zalika lii al fawzul azim mooy texe gu magga magga magga mag ku am lii rek texe nga ku am lii texe nga ku mel nii texe nga barakallahu fiikum alhamdulillah kon yàllaa ngi noonu ku déggal sunu borom subhaanahu wa yàlla fay la ku nangu ndigal yàlla fay la kon nag ñoom ñu ngi noonu waa na lii ñu am a ah, dégg bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa moo leen ko may bëgg yonent bi sallallahu ko may tegu ci ngërëm tegu ci ndigal moo leen ko may waaye dara mayu leen ko loolul bëgg alquran bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp mu leen ko may mu mel ni nag foofu mu nekk ci madinatu munawwara li naan ku tëb dal ci xal dese beneen tëbin fekk na fa ay yahud ginaaw ba mu leen defee mu axaat fekk na fa ay yahud ak ay wasane yu na ñoo xamante nii ay def defkati bàkkaar lañu waaye yahud yi ñoom xamoon nañu ni annabiyul muntazar fii lay wàcc xamoon tam dana ñëw ardu faaraan ñoom xamoon na ni fii dana am yonent bu wàcc waaye ci muusug yahud yi dañ leen daan jaxase dañ daan jaxase araab yi ñuy xeex rek seen biir wala ñoom tam ñuy wut ay koom-koom ci ñoom nan lañ ko doon wute mooy di leen jaxase ñuy xeex di defar ay ngànnaay ay fitt ay xeej di defar ay flèche waaw di def ay industrie ci ci ñoom ci noo xamante nii benn famille dong moo la ñu ndax ñoo bokk lépp ndax lawsu ak xësrëj la lawsu ak xësrëj benn famille la woon boo xamante ni mi ngi mel ne ñun temps yi passé coow yi ñu bëggoon sulli ci diggante ethnie yi nga xam ne loolu ku toog di ko xalaat sax yow bala nga fay jógee war ngaa xam ne yow loolu mënta nekk loolu daf mënta nekk ndax lu la lu la lu jiit sa judd la sa maamaati maam musu ko def sa maami maam musu ko def sa maami maam musu ko def sa maam sa sa baay musu ko def sa yaay musu ko def da nga judd fekk fi muy mbokk goo xam ne fekk wuyu da nga da nga cee bokk nga xëy xëy bëgg koo tas ci politique ak wax yi kenn xamul ak xaalis non moo tax moo tax ñun sunu xale yi war nañu wax ak ñoom de <coughs> lu bari rëcc na leen lu baree baree bari rëcc na leen nag ma wax la ko tey moo tax lawsu famille la boo xamante ni mi ngi mel ni jenn jigéen joo xamante ni par exemple ma la ko benn jigéen lébu bu jógee fii ci lébu gi dem sëyi waalo am fa njaboot sëy ba jeex mu ñibbi Dakar toogaat tuuti benn joolaa takk ko te lébu boobu mbokkam am na doomi ndey pulaar voilà léegi nag xoolal ñooñu joola séréer lébu pulaar te yeneen làkk yi des yépp koo ci dàq foofu lay bokk waaw ñooñu nag kan moo kan moo man a taal googu mbokk kan moo mën a yàq googu mbokk xanaa ku xamul rek moo tax bu ngeen dee politique seet leen ni ngeen di politique te bàyyi am na loo xamante ni c'est codé kenn mënu ci dara mu ngoog Abdullah ibnu Ubay ibnu zelul nga xam ni moom lu baax bëggu ko lu baax ñoru ko yàq moo ko tax a jóg def fitna ak mbugal rek moo ko tax a jóg moo tax euh, keroog bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam agsee Madina al munawwara dañ ko doon bëgg a fal pour mu doon jaraafu dëkk bi nekk njiit dëkk bi waaye ñëw yonent bi sallallahu alayhi wasallam tax na kenn faaleetu ko ñu teg yëpp ni ko teg a teg yëpp ba yi paase bi sang bi ñëwee nag ak hayba bi mu indi personnalité bi mu indi tax na ñu far sax bàyyi ca fal ga nga doon fal kenn falatu ko léeg-léeg mun waa gaa yi yéen cérémonie bi kañ lañ koy def gaa yi ah, ñun kat fa talaguñ na de fii ne ñun dañu am kilifa goo xam ne dañuy waxaguñu dara ñun daal ci loolu la ñu nekk booy bi daal li ëpp solo daal boobaa nga jëm ànd ak moom ndax kii moom kenn mënul jël kenn di ko teg ci kawam waaw loolu nag moo ko gënoon merloo li taxoon yahut yi mere lislaam loolu ci la bokk waaye mbokk yi mel na la ma doon wax ne ku tëb daal ci xal <laughs> dese nga beneen tabit waaw sang bi fekk na ci Medina ay giir ay yahut fekk na fi banu nadir fekk na fi banu Qaynuqa ak waa Qurayda ñoo ñëpp ay famille yahud lañu du ñàkk ci koor gi sax daañ ci ñam tuuti doonte dañuy bàyyi bii épisode yonent bi saa salam salam leen woolu ñoom ñëpp yahut yi mun leen man kat yàllaa ma yónni ab yonent laa su ngeen ko dëggalee moo gën ndax fekk ngeen ko ci seen téere yi yonent yi leen jiitu woon waxoon na leen màndarga ak li nga xamante ne moom lay mel su naafiq amul te dëgg rekk ñor xam ngeen ni yàllaa ma yónni su ngeen ko weddee ngeen téye ci li ngeen nekk yéen a xam ñu nekk ci jàmm waaye nag bëgguma fi fitna bëgguma fi rayante bëgguma fi dojante bopp ndax l'islam bii ma yàlla yónni solution la waaye nag du problème kon fu problème am rek na nanu xam ni am nañu ko fa yóbbu waaye nag du l'islam moom kon loolu daal laa bëgg ngeen xam ko moo tax am na benn yahut boo xam ne nii mbiram yépp moo doon taal aw ay ndax yàgg nañu di def industrie ci arab yi di leen nax di leen boole di leen jaxase benn waaye daay toog moo tax alquran leen ni yaa ayyuha allazina amanu in tutiu fariqan min allazina utul kitaaba yeruddukum baada imanikum kaafirin yahud bi ñëw na ni fay benn xale jox xaas bu bari ne ko gis nga wàllaw su ñuy toog seen xale yaa ngi foo ñu ngi nekk ci jàmm ñun industrie bi ñu daan def ci ñoom xeex yu métti ñu daan def ñu ren seen biir amatuñu léegi suñu nga ne ñu jaay kenn jëndatu ko felas yeeg jaas yeeg xeej yeeg yéen def yépp di ko commandé ñu leen di jiital ci ay bor lu ñuy ñorol ñu jël genn wàll ga euh, lu ñuy ñoralagul tam ñu am ca wàll ndax ñoo leen di jaay ay ngànnaay ñu daan reyante léegi na bi seen waajoo ju ñëwee te kat yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax de bi seen waajoo ju ñëwee ba léegi ñun amatuñu dara kon nag demal nga jaxase xale yi ñu xeex kooku daal di ñëw di fekk xale yi di xeex foofa bu neex mu ne ah <laughs> ay bëre mbër waaye ku ne xam nga kalaman da nga ko doon nangu waaye lislaam bari doole seen diine ji billaay moo bari doole waaye heure bii de moom daa wan fekk sa seen maam yi nii mais yéen a bëri woon ay maam yi jàmbaare wàllu ustaan ah mais dara ñun naka jee sunu maam ñun ñoomu sa man de kenn ko waxu leen dëgg sunu maam de seen seen maam fu ma ne sunu maam rek coow li jëm ñun si laa coow li li jàq sang bi daal di koy daal di laa ilaha illallah yéen maa ngi seen biir deewuma toxaguma alquran di wàcc jibril di ñëw yàlla di wax ak ñun directement ngeen bëgg fi dellu ci ceddo lii mbaa du moom ngeen nar def sama ginnaaw allahu akbar moo tax alquran ci la wax nii yaa ayuha allazina amanu in tuti fara yàlla koy wax in tutiu fariqan min allazina utul kitaab yarudukum baadi imaanikum kuffaar su ngeen moytuwulee waa ahlul kitaab muy juif yii li ëpp ci ñoom bu ngeen leen moytuwul moytu seen conseil ak di jaxasoo ñoom bare ñoom bàyyi dañ leen delloo ci kéefër moo kay fa takfuruuna naka ngeen di mën a weddee wa antum tutla aleykum ayatillah ñuy jàng alquran ci yéen jibril di wàcc sunu borom di wax ak ñun direct wa fiikum rasuluhu te yonentaam bi mi ngi ci yéen ngeen mën a def lii ah. kon nag fa man yaxtasim billah képp ku jàpp ci buumu yàlla gi faqad hudiya ila sirati jàpp leen ci li mu wax jàpp leen ci alquran dëgg leen ci koose yonenteel Muhammad sallallahu taala wa sallam defee rek dangeen di ngeen ci yoon sunu borom gulbati di leen wax ni yaa ayyuha lazina amanu ttaqullah xaqa tuqaatihi wala illa wa antum muslimun yéen ñi xam yéen a gëm yàllaa ko yonentam na ngeen gëm yàlla dëgg dëgg dëgg gëm bu leen dee mukk mukk mukk mukk te jébbalu wu leen te woomatu leen dugg leen ci lislaam bi kon nag wa'tasimu bi hablillahi jamian jàpp leen ci moom yàlla gi wala tafarraqu te bu leen dàqaliko waskuru ni'matallahi aleykum sant leen xéewalu yàlla yi leen yàlla defal is kuntum aadaan bi ngeen fi nekkee ay noon di xeex di reyante yahut di leen di boole ngeen di jënd ay ngànnaay def di def seen bopp euh, yu kenn dul xam yàlla leen baaxe fa allafa bayna qulubikum mu tàppe seen xol yi boole maag yéen ba ngeen bëggante joxante loxo bàyyi nga naay suuf ci suuf fa asbaxtum min ni'mati ixwaana ngeen mujj ci xéewal yàlla yi ñëpp di ay frère ngeen xëy xëy ba ko yàq te booba kat wa kuntum ala shafa hufratin yéen ngi woon ci bunt paxum kàmb màbb jëm ci safara fa anqasakum yàlla xettali leen min ha kazalika ni ki lii yubayyinu laahu lakum ayaatihi laallakum taxtaduun nii kat la yàlla def ak yéen ah leeral leen alquran bu mu leer naññ ndax ngeen jub mbir mi daal lii mbite mbir nekk leen kun wal takun minkum ummatun wal takun minkum ummatun yad'uuna ilal xayri wa ya'muruuna bil ma'ruuf wa yanhawna anil munkar ulaika humul muflihun sadaqallahu azim suñu borom nee na nekk leen wenn xeet bëggante leen soppante leen dimbalante leen bokk leen li ngeen am dee leen digle lu baax dee leen tere lu bon bus bu ngeen saxee ci lii de xamal ni ñi def lii ulaayika ñoom xul muflixuuna mooy way tax yi allahu akbar mbokk yi xool leen lii rek nga gis njàngat su tuutee ngi foo xam bëggoon naa ñu sànni fa sunu bët mbaa sànni fa sunu nopp ndegete kon réew yu am doole yi réew yu ndaw yi ñooy seen marché ñooy seen marché famille yi am alal ñépp te xamuñu seen bopp ay nit ñu jóge ci àll ba ñooy ñëw di leen exploité fu ñuy tàmbalee bi leen dee exploité dañuy tàmbalee ci démocratie dañuy tàmbalee ci égalité dañuy tàmbalee ci droit de la femme dañuy tàmbalee commencé désarmer kilifa yi lépp lu ñu amoon ci pouvoir ci njaboot ñu fexe ba nangu ko nga xam ne loo wax ñu ne dictateur nga réew mu civilisé réew mu nii nangam réew mu nii nangam di jal xale yi dooni bankal dooni talalal kenn du leen yar kenn du leen yee kenn du leen jubbanti te ñooy ñu ëllëg ñoo war a yor réew mi boo muusee ba muus nag teel a jàngat loolu da ngay daal wëññi ko ndànk nag waxtaan ak sa peuple waaye peuple itam nangu laa déglu nag ñu xool xam ni suñu intérêt mooy ànd mooy ànd suñu moytuwulee suñu pétrole bii moytuwu na suñu gaz bii moytuwunu nangam ak nangam nangam len nat ci ay Occident suñu deret suñu deret yàgg na siim seen seen cere ñun fi ñuy war a déggee dañ fa déggewul ñun dañu yaakaar ni de rangooñi baadoola mooy siim cerey buur dañu yaakaar ni sunu buur yi nu nekkal la déedéet fii buur amu fi buur yi mooy ñan mooy ña nga xamante ne bu doon dee duñ ñu jaale duñ ñu suul du ñu sangale te bu Afrique doon dee ba far ba raaf am na ñoo xamante ne merce lañuy wax xoolal Afrique yi dee ba ba ba banku dëkk bu dara xew bala ñuy am jàmm sànni fa ay waxante ne kenn du xam fu muy mujje ay warul jeex xeex bu dul jeex musiba moo xam ni kenn xamul fu mu yem kon nag na leen yeewu te def sunu bopp nit lii rek laa bëggoon daane la incha allah di leen dig daje daje incha allah maa ngi leen di dig daje incha allah yi bi ji ñëw dana fekk ñu ngi ci koor gi ci kattan suñu borom subhanahu wa taala léegi dañu ànd ak yéen nag tous les jours incha allah 14 heures fu mu jotee dina ñëw ak yéen ci waxtaan yonente bi sallallahu taala alayhi daaw ñu ngi woon ci badar ak uxud ak gàddaay gi ren incha allah dina ñëw ak yéen ci euh, bani lexyaan ak bani nadir ñëw ak yéen ci huday bii ñëw ak yéen ci fatxu makka incha allahu loolu la ñu fas yéene indi ak yéen ci kàddu suñu borom subhanahu wa taala yéen yàlla defal jàmm defal ñu sutura Pape Ablaye sama xarit maa ngi koy jégal di ko balu euh, atum ñu ngi ànd wax dëgg yàlla lépp di rafet baarakallah Pape Ablaye maa ngi lay ndokkeel di ndokkee sa nattangoo techniciens yi fi nekk yëpp ñoom itam ndax yéen ñëpp benn ngeen maa ngi leen di nuyu te leen ziar bu baax a baax incha allah ca kanam tuuti Oustaz Alioune Sall dana ñëw ci waxtaan wi Mbàkke si la 16h incha allah bu 14h jotee wala boog 22h30 naa ñëw ànd ak alimul allama alhaaji imam Mor Seck seen mbokk Oustaz Alioune Mbaye la woon ci teewaayu Alioune Ndiaye asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.